ci tas liggéeyam su ko defee il faut li nga xam ne dañ ko doon ci mag ñi ay valeur nekk ay itam ay jikko yu rafet ngeen jàng ko yéen xale yi di ko joxante ci seen biir ndax yaa koy commencé ci sa famille yaa koy commencé ci sa famille di leen teral di leen respecté ki mag ñu respecté ko toog ci gannaar ci biir famille yi maa ngi koy wax rek ci jigéen ñi bëri ci démb ci mbir ni leen bu njëkk jigéen bu nuyu day sukk man leen benn jigéen dootul sukk leen man leen sukk mooy suñu aada ba léegi boo demee France les grandes familles soit suñu la invité ku daf nañ sukkal day ñuy sukk ndax xam nañ sukk mooy mooy signe bi gën a kawe ci jox nit respect nuyoo joxe ñaari loxo ñooy joxe ñaari loxo sëriñ moomu les grandes familles ñoo ko moom kon nuyu rek war nga ko jox ñaari loxo gis ngi ñun dañu ci yar ci suñu kër yi ba sa doom sax ñaari loxo nga koy jox sa jabar ñaari loxo nga koy jox bis ma doom yi dañu wax ni ni papa lu tax boo nuyoo jox ñu ñaari loxo léegi ma yari moom lañ ma yari sama waajur moom ma saan jox nit benn loxo mu gëdd ma ñu ma jox ko ñaar ma jox ko ñaar suñu duggee ci ma attention boo nuyoo tuuti nit mu mën a doon mu ko jox ñaari loxo loolu Sénégal mi koy bëgg te yonent bi def ni bokk na ci li ñuy xami julli mu nuyu ku mu xam ak ku mu xamul waaw léegi si ñu julli gouvernement dafay nuyu ki mu xam ak ki mu xamul léegi xale yi bàyyi nañ ko jox la cati baaraam rek teg wala mbooloo mu bari bari kañ xam dañ lañ fay jox loxo teg jublu tubaab yu bon yi la waaye tubaab yu baax yi sax duñ ko def ñun ñuy dem toujours ci famille yu mag yi ci biti réew boobu respect kooku nag ko delloo si ci suñu biir société ci nuyoo d'abord jox nit ki respect boo koy nuyu nga xool ko jox ko loxo moom tam mu xool la jox la loxo waaye jox ko cet baaraam rek teg loolu du woon àdduna Sénégal suñu maam yi daawuñu ko defante loolu nag